Après quelques années d'absence sur la scène musicale sénégalaise, il est de retour. Le grand artiste Hamdello, met pas les mains vides. Il est venu avec un nouvel album nommé Repère, un mot qui en dit beaucoup. Euh, le, grand artiste euh, Hamdello, euh, plus connu dans le groupe, à travers le groupe Tiedo, Super Tiedo et son nouveau groupe, c'est lui que l'on accueille sur notre plateau de Dakar Actu grand ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si maa ngi lay nuyu bu baax baax. di rafetlu dalal bi nga ma dalal et puis ak équipe bi ma fi fekk ñu ngi leen nuyu di leen sant. di la dalal bu baax si suñu plateau askan bi nag namoon nañ la grand fo ne woon. man man wax googu man daf may déranger man maa ngi fi. <laughs> ah mais dañ laa gëj a gis man maa ngi fi maa ngi def sama liggéey. ah yeah may bon may ngi damay comprendre parce que bon c'est vrai que depuis quelque temps Sénégal événement lañuy gëna lañuy gëna médiatiser mais defe man pendant toute l'année wéru ko rek la do tu jouer amul man amul ben semaine momu dul peut être xeyna do doom ni ñuy fi ñuy joué la wala peut être euh, par rapport aux autres li ñuy médiatiser seen euh, jouer et puis bon d'habitude c'est des événements mais sinon maa ngi joué de. que <laughs> tamit da nga nekkoon ci ruq bi di togg. parce que li ñu indil fi mu ne nii. <laughs> album repère bi togg mom mëna wax ni euh mëna wax ni ci la dëkk parce que.

ndax tout à fait parce que ce n'est pas pour album bi Tout doux repère parce que moi je pense que j'ai toujours joué un rôle de conducteur parce que euh, par rapport à ak par rapport à la musique je pense que tout le temps vais donner le bon exemple le bon exemple moi.. moi, des des euh, euh, des conseils des conseils parce que si tu veux album c'est neuf titres mais bon c'était morceau bonnet..! de day aussi le mot repère le mot repère parce que même si ci jëlee morceau bi par exemple comme Mamsim Mamsim Mam Sim dafa morceau libre, quoi boy libre repère repère c'est par rapport à nos valeurs Nous suñuy valeurs valeurs. nga toogoonoon sa valeurs. Nous la léebal valeurs. daf ci de sorte que boy, cet album bi morceau yëpp dafay refléter tout ci repère parce que c'est par rapport à l'éducation des enfants par rapport à talibé, par rapport à beaucoup de choses en fait si toi euh, boo une occasion de euh, comprendre les ah, d'accord je n'y manquerai pas Quand euh, à travers ce titre nous trouvé ses repères. non non non <laughs> dans la vie parce que tu sais man par rapport à que que c'est toujours une suite quoi parce que tu as volume 1 volume 2 volume 3 toujours faire suite par rapport à ma musique, par rapport à euh, les thèmes. C'est important parce que moi, je pense que euh, euh def, def musique, de, euh, tout est cinéma ou le théâtre, tu racontes. Tu racontes. Et des fois, def na li ngay raconter, dafay am solo teureum parce que nit ki mën na ci gis njëriñam. Surtout pour les enfants parce que moi je naa wax ni album bi dama ko consacré pour les enfants parce que xale moom mooy màgg te franchement dafa war a màggale leen loo xam ci bép côté hein dafa war a loo xam ni dafa wara nek lo xam lu positif la lu positif la moo tax dama gëna articuler ci par rapport à à nos enfants moy repère bi rek parce que xalé ci ba muy dollu ba muy nekk xale nga ko mëna def euh, nga ko mëna jox ay exemple yo xam da koy magalé yo xam day nek lu positif quoi c'est toujours repère par rapport à nos valeurs kon euh, xam dal ñu daal di rek ñew ci li nga xamantene moy groupe Ceddo nga nekkon ci groupe bi tay ji ñu gis la ci li nga xam moy super Ceddo lan mo waral transition bobu non c'est dafa euh, mel ni man Ceddo moy comme li ma koy waxee rek man Ceddo moy sama université Ceddo fala xamé lepp fala xamé musique bon bien que nak yalla dimbali na ma avant may dugg Ceddo defna jang na conservatoire defna école des arts mais Ceddo sama formation fofu lañ ma bëttee lañ ma bëttee mën naa wax ne mooy sama bango mooy sama bango mais ba ma ba sañ-sañu créer man sama mais toujours tamit wane ni man ceddo laa la nekkoon loolu moo andi xamdal le super et puis bon benn instant pour man ma ñi di mais bi pour am importance amul importance bu bu super ceddo moi je trouve qu'il a toute son importance parce que euh, tiado la super tiado Benen bu juddu ci biir la euh, juste nit ñi nag amoon fi benn polémique di wax ni que y a problème. lii ku ne di wax ci sa côté léegi ceddo tiado le lu ma doon fa def leeral lépp. ceddo lu def. Ah? Euh, super tiado le ma fay def. way waaw kon benn la. <laughs> waaye dafa mel ni xeetu way yi benn de ndax léegi dañu gis ne que mbalax bi dafa tàng jeur xalé yaa ngi clip yo xamanténi mbalax bu saf sap la mais yow da nga ñëw ak ben style bu douce bu wàcc waaw mais moi il est wax rek parce que tamit amna na lo loo lenn loo xam tamit dama koy delloo njukkal ceddo parce que tey jii lu xam ci musique li ci ëpp tamit ceddo formation la et def naa la ma jàngoon la moom jël tay diko continuer mais gën ko améliorer gën ko améliorer et bon toujours euh, par rapport à la musique man toujours dama mës am ben concept ci musique parce que j'essaie toujours def ben affaire bo xamni c'est non seulement ça sort de l'ordinaire mais par rapport a yenen rythme qui yooyu parce que bon moi je fais du mbalax mais bon moi je n'aime pas les mbalax qui dérangent qui dérangent franchement parce que bon pourquoi déjà nek sénégalais euh, c'est une chance c'est une chance parce que par rapport à culture yi fi nek ethnie yi fi tout le temps sur loolu là mos pour défendre ma musique c'est pour cela toujours ñun avons une affaire bo xamni man mako momal sama bop quoi et pourtant affaire bo ma moomal sama va Senegal moo ma ko may parce que par rapport ak ethnie yu bari ak euh, culture yu bari ak rythme yu bari kon meun na né Super tiad bi mu ñëwé li nga xamantene mom la yok ci li nga xamné mom la doon def moy que dafa gëna retravailler voix au lieu que instrumental. ba xam nga tamit euh, boy def dara tamit dang koy def juste pour euh, pour pour pour nga mag mais def loko pour pour nga delu ginnaw et bon je pense que chaque jour que Dieu fait nit ki ci lamuy yëngu def ci jang def ci jang bon. bu fait tamit yow noonu nga ko gisee là tu es en train de me jeter des compliments merci. ah tu as fait un grand bond en avant en fait. <laughs> merci woy bu neex en fait album boo maintenant c'est plein de sens moom la ñu gis et que dina continuer J'espère que jàng bi dina dina dina mais bien mais bien sûr nee naa euh, album bi c'est pas pour rien mu tudd repère def parce que dama ci am benn rôle bu mag du ma def parce que de nos jours euh, valeur les valeurs les valeurs ba ci. Euh, valeur yi dafa dafa yu bari gars dañ ko dañ ko faté et pourtant toujours ñun ñu fi ñi ngi Sénégal ñi ngi Sénégal parce que tamit dëkk boo dem tamit dafa am ay valeur mais ñun tey di de nos jours am na ay affaire yu bari yoo xam ne dañ ko commencé di perte loolu baaxul ci réew parce que day jur leneen dafay jur leneen parce que mën naa la jox ay exemple yu banal par exemple léegi da ngay gis kenn koo xam ni dafay jël yëfu jaamu nga naan guerrier la

bari na luñu luñu wara def dal ci mais dal xamal ne lepp luñ ci def tamit pour xalé yi la quoi. d'accord euh di len fatali rek ci yene ngi ci sen plateau spécial.

waaw ni ko defee nii dafa aare dara rafet mais peut-être c'est la sagesse. effectivement voilà <laughs> c'est la sagesse puisqu'il s'adresse euh, aux enfants. voilà léegi xale yi ñooy <laughs> priorité voilà moo moo tax yaa ngi may inspiré sax léegi euh, prochain clip bi ma war a def sax est-ce que du ma teg xale yi nii ma mel ni ku leen di lébal. Ah. c'est une bonne idée ah. bien sûr waaw voilà. defal loolu exclusivité bi fii ngeen ko amee Dakar. waaw voilà fi mu nekk nii moom xale yi mooy ay <laughs> priorité. waaw te xale yi la nar non ñoom la moom album bi moom pour ñoom la quoi pour ñoom la d'accord qu'on euh, pour euh, pour nous, la euh, cette jeune génération même par rapport à la jeune génération qui a commencé musique ak de c'est c'est juste pour pour la jeunesse c'est pour la jeunesse Moi, parce que moi suis un te bu je tamit dafa je a faire réew def album bi pour loolu quoi. Euh, grand xanaa rek dañuy euh, daal di dem si njeexitalu émission bi waaye balaa ñoo pare rek dinaa la laaj euh, sa carrière maanaam li nga xamante ne moo nekk ci kanam tey ji ak promotion album bi naka lay demee. waaw mooy li ma la wax léegi léegi rek li nekk ci kanam mooy par rapport ak promotion album bi dinañ def benn tournée sénégalaise ci 2020 bi mais toujours ñu ngi ko jagleel xale yi ak yenn gox yi ak yenn gox yi dinañu waxtaanal ñi nga xam ni ñoom ñoo ñoom ña la ñu dénk gox yooyu.

li fi amoon euh, temps yi nii yàlla def na ni way nañ ko man man ak Ablaye ñoo ko way mm-hmm. mooy surtout affaire u taalibe yi nañ ko depuis mais des fois tamit dans ma tête damay naan euh, parents yi tamit dañ am part de parce que tamit euh, da nga jur sa doom mais jur sa doom cela ne veut pas dire tamit da ko war a sànni mm-hmm. mais tamit kañu ka ngay dénk sa doom tamit kooku tamit dafa war a jël ay responsabilité jël xale boobu def ko comme doomam loolu bu ku ne moo tax tout le temps vice versa ñu ñaañu dañ ci am part de de responsabilité d'accord

moo tax ma delloo ko njukkal naan ko euh, lii lañ doon ñaan lii rek lañ doon ñaan toog bis di fàttali ko léeboon lippoon amoon na fi daana waaw voilà bi mu amee yaa fekkee <laughs> yaa wax ñu dégg non loolu yéen seen génération la ñun suñu génération nekkul woon loolu uh-huh. waaw tey ban lépp nga ñu tegal hmm? tey ban lépp nga ñu tegal ci léeb bi non non non non man mënuma lépp <laughs> ku nekk ak sa sa profession man sama profession way la. Ah, way la mais da ngay wayal xale yi da nga leen bëgg may ñu non mais ma maa ngi ciy xel parce que xam nga xale yi moom bu yàlla defee tourner boobu ñu bu bu antoo incha allah rabi yooyu yëpp dinañ ko mettre en place bu jaree ñu dem wuti ay léeb ay léebkat bu jaré ñi nga xam dañu yëngu ci walu dessin ñi yëngu ci walu théâtre parce que on va faire quelque chose bo xam dal franchement non seulement c'est c'est c'est pour les enfants mais marquer le coup quoi franchement moom moom de jóg nañ ci daal jóg nañ ci et puis yàlla na ko yàlla mottali d'accord incha allah yàlla dina def loolu waaye balaa ngaa xanaa balaa ñu tëj émission bi di ñu may benn a cappella au moins si non mooy ma mooy li ma doon way léegi léegi rek ne ah, kon kon yow kon kon pour yow man dama doon wax quoi way moom déedéet way wayoon nga kay waaye dafa gaaw dama ko bëgg savouré <laughs> non déjà j'ai pas la pour chanter parce que j'ai mal dormi non seulement j'ai mal dormi naa la aw pour nga way mhm. il faut nga noppal baat da ngay bàyyi ma leb ko ba benn waaw naa la aw man sama baat neex na ah mais kon jëlal benn woy boo xam ne ko wayoon ñu way ko <laughs> Pape ban nga doon wax sa drogue bi ah drogue est-ce que magu la <laughs> donc tamit de boo ko fekkee tamit de li nga fi nga fàttaliku du bëri de mais si si kii bu bees bi ah. xam nga j'ai pas encore assimilé kii mais boo ma si mayoon benn non kon kaay ñu jël toog tumi kon ñëwal naa la nga toog waxuloo am na lu la metti waxuloo xam naa ni toog kuy noppi toog tumi toog tumi ndax man fekk na la nga jooy dama xamul lu ko waral sa rangoo ña ngi tuuru dama xamul lu ko waral looy jooy toog tumi fekk na la nga toog waxuloo am na lu la metti waxuloo te xam naa ni doo kuy noppi toog tumi